Euh, li ma mun a def rek mooy def témoignage si Maymuna euh, au delà euh, lu mu nekk journaliste bu xarañ buy respecter éthique ak déontologie mu nekk patron de presse boo xam ne aussi ñun mun nañu xam lu muy defal ses journalistes je reviens de la kan il est dans le secteur privé bokk na si rare patron de presse yoo xam ne yónnee na cinq journalistes loolu man mun naa ko témoigner ay catu sama siste a ngi nii taxaw bi tey mun na mun na ko témoigner leneen lii li ma ci yokk rek mooy li ñu war a wax yëpp wax nañ mais suñu buggee lii mu dokk c'est simple les autorités politiques son la si ñoo xam ne avec beaucoup de respect et de considération Mamadou Diop Decroix li fi nekk ci liberté yëpp moom mun na ko wax parcours bu Sénégal def yëpp xeex bi Sénégal xeex ba atteindre liberté de presse et liberté d'expression d'une manière générale mais depuis un certain temps gis nañu agression yi du wàllum journaliste yi rek ak ñeneen ak ñeneen suñu buggee mu dox nag c'est très simple impunité bi jotu wax na ko léegi moom moo bëri si réew mi man j'étais quelqu'un koo xam ne ki avait beaucoup de respect de considération pour Talla la jusqu'à présent personne ne sait qui l'a agressé ce qui s'est passé en 1993 ñëwaat nañu génnee loi d'amnistie ñu ngi nii di waaj encore beneen loi d'amnistie donc loolu yëpp ci impunité bi lay bokk impunité bi nag tant que ñu ngi si dynamique boobu du ñu mun a du ñu mus a arrêter agression sauvage yi nga xam ne dañ koy perpétrer contre les citoyens qu'ils soient journalistes qu'ils soient hommes politiques qu'ils soient de la société civile ak fu mu munta doon donc loolu suñ ko buggee suñ ko buggee arrêter xam nañu solution bi c'est quoi remède bi c'est chercher les coupables identifier leen et les punir suñ doon def loolu def naa lii mun nañ ko mun nañ koo saafara une bonne fois pour tout beneen appel bi nag dama koy lancer aussi à l'endroit de la presse parce que corporatisme da ngay gis magistrat yëpp dañuy booloo avocat yëpp dañuy booloo il n'y a que chez même boo solee yére bu rafet gars yi dañ leen naan yow foo jóge boo amee oto on a comme l'impression qu'on n'a même pas le droit de l'avoir ça c'est notre principal problème Samou Biagi wax na ko fii léegi il faut que cette mobilisation là elle continue convention des jeunes reporters muy ANPS muy SYNPICS muy ñeneen ak ñeneen ñëpp ñun ñëpp nañu mànkoo nekk benn ñu xam ne tey jii may mun na la dal demee mun na dal keneen ñun ay éditorialistes lañu dañuy bind ñii dañuy nekk di wax ci rajo ñeneen ñii dañuy nekk di wax ci télévision donc ñun ñëpp ñoo bokk liggéey bi liberté d'expression c'est consacré dans notre charte fondamentale dans notre constitution donc ñun ñëpp war a taxaw xar suñu tànk tubay àndandoo xëccandoo dóorandoo merci beaucoup